waaw li fi daan xew rek moom moo fi xewati mooy bassin de rétention bi nga xam ne bu nawet bi jubsee suñu fil yi ci suñu diggu bopp yi lay nekk am na ci ay kër yoo xam ne sax amul woon ay matelas dañoo dindi woon lal yeeg yëpp ngir préparé woon nañ lii te suñu autorité gën ñu ko xam muy maire muy ministre bi muy directeur ONAS bi moo ñooñu gën a informé fuuf parce que si état la ñu liggéeyee ñooñu gën a am information bi bassin bi amul capacité wu te ndox bi ndoxu taw bi ndoxu taw bi nga xam ne moom moo nekk si Touba yëpp si base de rétention bi lay daje. baneen bi ñu si gën a naqari soo leen woowee da ngay def alerte plusieurs fois ñu def alerte ci kanamu bassin bi boo dikkee duñ la tontu maire da ngay bind lettre yóbboo yóbbul ko pour ko jafe-jafe nga xam ne moom moo nekk ci du la sax rek ñun ñun ay jeunes lañ nekk si dëkk bi développement dëkk bi ñor ñu ndax ay murid lañ ay ay ay sénégalais lañ en plus mais respecté wuñu joxuñu cër sax nag. maire respecté wuñu joxuñu cër. benn benn baat la ñu bàkkee xale kër ña ngi dañoo dañoo réew te gis nga lii beneen localité bu mu nekkoon si Touba mu demee na ne nu dul nii bassin bi am pat pat bi am ëpp na 2 mètres bassin bi matul matul 3 mètres. 3 boo ci génnee 2 mètres 1 mètre moo fi des 1 mètre yi su su remplir ndox li ci des lépp ci suñu kër yi lay dugg. Touba ca kanam liñ def ci ay bas ay ay ay ay branchement ëpp na 20 lépp si bassin bi la delsi waa Touba ca kanam bassin euh, branchement yi ñu def yëpp si bassin bi la delsi bassin bi paan pompe yi fi nekk paan depuis 15 jours jaaruñu fi xooluñu ko toppatoowuñ ko depuis 2 heures de matin la tàmbali di taw ba jusqu'à maintenant amul benn pompe bu tàkk ba fii ñu toll nii midi jot na. Mm. il est midi mais amul benn pompe bu tàkk. mooy première magistrat de la ville maire la. donc ñun suñu suñu kàddu jotiwuñ si état jotiwuñ fenn ci suñu kàddu ci moom la joti dañuy bind ay lettres dem ba mairie déposer ko mais du la sax répondre jafe-jafe ndoxoy la waaye kon may indi la référence su lettres yi ma ko bind yëpp mais amul benn bu ma bu ma mës a tontu. beneen bi ren cette fois yi problème bi gën a gën a jéggi dayoo parce que waa Touba kanam liñ def ci ay bas ay ay ay ay branchement ëpp na vingt lépp si bassin bi la si waa Touba sa kanam bassin euh, branchement yi ñu def yëpp si bassin bi la del si bassin bi paan pompe yi fi nekk paan depuis 15 jours jaaruñu fi xooluñu ko toppatoowuñ ko depuis 2 heures de matin la tàmbali di taw ba jusqu'à maintenant amul benn bu takk ba fii ñu toll nii midi jot na. il midi mais amul benn pompe bu tàkk. kenn mënu ko xayma. parce que gis nga fii ma taxaw ni ba booy àgg si corniche bi nekk bi ak si yoon daaru fépp benn buum la di benn ndox ñun lii yàgg nañ ko dund ñun ci lañ judd yaru ci màgg ci mais cette fois-ci barke Cheikh Ahmadou Bamba dafay jeex. dafay jeex am nañ am. gis nga ñun solution bi wax nañ ko waxate ko wax nañ ko waxate ko cette fois-ci xam nga nan la def ñoom nañ génn baa ñu bassin bi su tawee su tawee waa ONAS yi nañ génn bàyyi ñu bassin bi su tawee kër yëpp am ndox. fépp ci Sénégal gépp Touba gépp en inondé ñu bokk ñuy dund ak ñun gis nga bientôt dañuy dugg ci màggal Touba gi bientôt dañuy jëm ci màggal Touba gi ñoom ñi nga xam ne ñoo war a saafara yi seen kër yi mi ngi baax ñi ngi dëkk ci ay étage yu ñu climatisé gis nga ñun suñu kër yi nga xam ne dafay nuru ay ñugu-ñugu moom lañ yor ci la ñu suturloo sañu gan ci lañ leen di daral ay murid lañ ay taalibe Serigne Touba lañ buñ ci bo bokkul nag nañ ñu ko wax ñu jëlaat suñu bagage delluwaat suñu dëkk